ay ñooñam ne day bokk par force. mooy kan ci biddéewam Ousmane Sonko. waaw xam nga moom euh, biddéew moom xam nga mës naa koo mës naa ko wax xam nga sunu borom. Mhm. day jël nag mbiram def ko nu mu ko neexee ak nu ko soobee yàlla moo mën a préparer nitam. la olof naan garab bu war a doon péñ ci law bi di ko gis ba koy yet maanaam suñu borom des fois day programmer yëfam ak nam ko soobee ak nam ko bëggee waaye nag maanaam ci bi dee ci yëfam bu dee ci mbiru bayre ci moment bi mhm. ak it mbiru biddéew day xam suñu borom defal na ko ko ndax buñ ne biddéew mooy bayre par exemple dañ ne la mu koo xam ne tey bu romboon fii buñ ne diwam fi ñëpp bàbbeeku kooku soxlawul seet war ngaa xam ne nag mbay yàlla am ànd naag moom Ousmane Sonko moom ku waxalul ku waxal yàlla rek di nga xam ne kii suñu borom am na lu mu def ci moom moom ci boppam sax loolu da koy jaaxal parce que tey mën na nit mën na laa beñ nga romb ko léegi mu bëgg ko loolu ku yàlla préparé moo koy de wala boo jàkkaarloog moom doo yàkkamti sax bëgg mu kii wala bu commencé wax doo yàkkamti bëgg mu pare wa ilaa bu ñu lancé dara ni mu ngi ci rek nga gis xol yëpp daw uti ko loolu yàlla koy def ndax yàlla xajul fu du ci xol jafe-jafe yi muy dund sur le plan mystique ban ban jàngat nga si def ak xëy na moom naka la ko war moom naka la ko war a percevoir parce que am na ci kenn ku nekk ci langue politique ku ko ne danga nga war a muñ ndax peut-être lii la am na ñeneen ñu mu dal mhm. aussi dañu dañu muñ nangu la dëgg la ba xëy na peut-être bu fekkee ne yàlla tudd na mu nekk njiitu réew ou bien bu fekkee ne gis nga ko yow tamit peut-être am na ñu ne peut-être pas 2024 mais am na ñu gëm ne 2024 la moom mooy moom mooy heure am lu ci mën a xew yàlla pare na dégg nga te li may li may li may faral di wax rek gis nga paaka foo ko jiitoo ci mbar bu la fekkee daggaaleel moo tax ñu ni paaka mbar kenn mbar dara du ci jiitu paaka xam nga Ousmane Sonko dafay wax ni sunu borom tey mi ko préparé ba nga gis li fi jaar lépp nag nga gis ni tey bëri na ci ñoo xam ne amaana bu doon loolu heure nettalee tuñ ko mais nag doon nekk nag sonn na moo ko waxal boppam am na ñoo xam ne foog nañu Ousmane lu ñu ko teg rek dàngam xam nga koo kon xam na leen ni mu ngi dund lu metti loo xam ne amaana lii mën na ko wax lii mënu koo wax déjà li ko dal nii rek lu ko gën a metti amul ko gën a metti amul munoo génn sa buntu kër ko gën a metti amul mais da ngay xam ni it ndogalu yàlla it ci jaam ak nattu yàlla dana yëkkati jaamam yàlla bu la tegee natt laa bëgg dimbali tey am na ci responsabilité yoo xam ni tey munoo ko am mukk te jaaroo fenn moo tax li mag ñi naan foog nga ñime kaani gi ak akare bi pour mën a dem daj loole mënul ñàkk moo tax nag muñ rek nga ko mën a sant aussi d'accord muñ mhm. ba kañ muñ jamono ji mhm. wala muñ xaar ba yëf yi passé dina mën a dellu si waat waaw ñaari ñaari yan anam ñaari yëpp génnul muñ xam nga Serigne Cheikh damay dégg mu naan muñal muñal mu ne ba kañ mooy maanaam muñ boo amul àpp boobu yàlla nañ ci yàlla musal mais muñ bu am àpp baax na parce que yàlla bu la namee dimbali am na ci loo xam mënul yomb foog nga dund li kay dund as tuuti mais tey par exemple mille vingt 2024 ak cinq ans mais li may li may wax rek xam nga président Macky Sall fi mu ne bi tey damay wax ni dem na mais ñaata politiciens yoo xam ne say euh, Macky Sall fi mu ne na leen retraite bari na tey ba ci njoñu boppam ba ci opposition ba ci keneen ak keneen parce que bëri ci ne actuellement nii may wax yow Euh, lañ foogoon ak fi président Macky génn ute na maanaam bu dee yaakaar danga nga naan seen yaakaar tas na mais bu fekkul nga préparé wul sa bopp wala ñan ñan la président. ah bari na bari na de man kay xam naa ne xam nga ko sax ñu ngi yóbbu retraite moom bari na moom. bari na de Macky Sall kay nga ni ñu mu yóbbu retraite nag bu ñu waxee rek ah bari na de macha allah parce que lii mu wax tey di ko waa affaire ñoo ko waxal seen bopp fooguñu ko woon. gisoo ci nit ni président tas na suñu yaakaar gisoo ni xam ni kooku kon programme yi woon dara lu dul lii lii la visé woon. alors ñuy gërëm Macky président Macky Sall ci discours bu rafet bi ak lu am solo li mu wax.